asalaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi ñuy seetaan fii nga xamante ni moom mooy euh, Thiès Info euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay kenn ku ci nekk ci yéen euh, ki nga xamante ni moom moo nekk ci kàddu gi di waxtaan ak yéen mooy Goumalou ñu ngi fii nag nga xamante ni moom mooy Sébikotane ci benn complex bu ñuy wax complex Kër bi ñu fi ñëwee nag fekk nañ fii ki nga xamante ni moom la ñuy wax Sina na su ko defee rek ñu daal di koy bàyyi mu nuyoo ak askan bi nga xam ne ñu ngi seetaan salaamaaleykum. askan bi ñu nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant di nag euh, di leen gërëm ci euh, invitation bi ngeen invité nag euh, tey jii moom su ma bu ma invité fii mu nekk di wax donc c'est un cri de du cœur moo tax tey nag ma jàkkaarloog askan bi askan Sénégal yëpp ñi nekk biir Sénégal ñu nekk si extérieur ñu nekk lépp fu mu munti nekk rek xam nga tamit ñu nekk ay sénégalais rek xam nga sama cri du cœur laa bëgg ngeen déglu. te ngeen eh, ngeen jàppale ma ci moo tax tey ma ciy wax. jërëjëf comme ni mu ko waxee noonu ñu déggee ko noonu cri du cœur am la bëgg eh, askanu sunu gaal gi yëpp daal di koy eh, déglu waaye itam ku ci nekk ci ñu daal di ko ciy jàppale bu baax a baax a baax a baax ñu lay laaj rek ni gis nañ ni yaa ngi woon France depuis 2000 ñu bëggoon xam rek ana lan moo sabab sa ñibbisi fii ci Sénégal. waaw lu tax ma ma ñibbisi Sénégal parce que dama bëggoon ñëw. comment dire participer sama réew waa parce que xol naa ne Sénégal euh, ñun ñoo ko war a defar ñun ñi euh, sénégalais ñoo ko war a defar bu ñu ko deful gisuñu ko koy defar donc du coup ma man comme que man damaa liggéey ci wàllu danse lu yàgg ma ne pourquoi pas parce que Sénégal tamit dëkku aar la dëkku teranga la dëkk boo xam ne daal lu nekk xaj na ci daal moo tax ma ne kon xaar ma ñëw jëm fi def loo xam ne que dina mën a servir tamit Sénégal mu nekk man sama participation ci compatriote Euh, jërëjëf dem fi def loo xamante ni dina mën a jëriñ euh, Sénégal gi yëpp ñu bëggoon xam rek euh, Sina ana lan nga xamante ni moom nga def fii ci Sénégal nga jàpp ni dina jëriñ askanu sunu gaal. waaw li ma def nii ma demoon ne woon damay def benn complexe complexe boo xam ne c'est une salle c'est une salle polyvalente une grande salle boo xam ne dina mën a jël contenir pas mal de gens donc salle boo xam ne dina nekk pour les concerts pour les réceptions de mariage pour les séminaires yooyu yëpp daal xam su ma ci defee ba xam ne doxoon na tey donc nit mun naa fi engagé lu mot ay je dirais vingt vingtaine de personnes donc man mooy sama participation ci biir dëkk bi. Euh, dëgg la waaye bu ñu la déggee li nga wax noonu askanu suñu gaal la te daa am benn baat bu ñu dégg muy cri ñu mu mel ni kon dafa am loo xamante ni daf la naqari. waaw dëgg la am na lu ma naqari trop parce que bu mu ñëwee en 2013 dama ñëw ma ne ma investir j'avais tous les papiers tout l'accord qu'il faut pour mën ko defar léegi bu mu ko defee ba pare. am yaakaar nag euh, ci sama réew que dañ ci taxaw li ma si jàppale léegi mu am ay difficultés difficultés yi métti yoo xam ne depuis 2013 ñu ngi ci 2019 di dugg ci 2020 te ba tey dara sottiwul waaw te crédit du boobu mooy lan mooy problème mu papier problème papier laa am donc papier yoo xam ne c'est contradictoire ci gouvernement pour man dëkk bi war na am dëkk loi boo xam ne que képp ku nekk ci yoon te ñi taxaw la si dañ la war a taxaw ñu la bàyyi waaw te man xool naa nag. Euh, xaw ma ndax askan bi moo ma xaw ma ndax état bi moo une question à poser tamit. dëgg mhm. donc du coup euh, cri du cœur mooy lan donc euh, dema jànkonteel ak problème mu papier mooy problème mu licence. parce que tey jii mënuma def complexe bu rëy bu mel nii boo xam ne c'est mun na jël ba 300 personnes te tamit. duggoo tamit ci affaire business tamit duggoo ci il faut nga dugg ci tamit mu nekkee salle boo xam ne c'est pour les mariages les réceptions et tout il faut nga am boo xam c'est une grande licence donc licence boobu mu ko déposé depuis 2013 donc euh, am na ay jafe-jafe-jafe ba commission bi jàll commission bu mu jàllee mu ne en 2014 ñu ne ma dossier bi c'est dossier favorable donc votre dossier favorable donc ma am ci yaakaar mu ñu ko déposé ma am ci yaakaar nag ñu dem ba ci biir après déposé papier yi ko déposé papier jóge fi dem euh, comment dire euh, la gouvernance de Dakar léegi bu mu egg gouvernance de Dakar donc au bout de deux ans ci laa am comment dire euh, retour ñi ne ma waaw donc euh, te dossier dañ ko bañ dañ ko refusé parce que da nga tabax a côté d'une mosquée waaye commission bi mu fi doon jaar mosquée bi taxul woon. benn avant que ñu koy ñu koy ñu koy rejeté commission bi ñëw na fi ba pare jaar fi ba saytu ko ba noppi léegi ñu toogaat deux ans. ñu daal la koy rejeter ndax da nga tabax à côté d'une mosquée. la ma wax damaa tabax à côté d'une ma def naa tout pour dem ut audience pour dem gis gouverneur dem naa fa trois fois de suite waaye ba tey damay wax ni gouverneur nangu ma recevoir ba tey bind lettre déposé secrétariat déposé lépp waaye ba tey nanguñu ma déposé nanguñu ma recevoir wax ma lu tax man na bëggoon xam rek le pourquoi lu tax ñu bañal ma ko parce que tey doo bàyyi euh, comment dire. Euh, dëkk jàmbur xam yaa ngi naan yaa ngi fa nekkoon jàmm am fa lépp nga ne xaar ma bàyyi lépp lépp lépp man ma daw si ñëw liggéey sama dëkk ñëw ba sama dëkk ñu bañ maa ñi tere liggéey loolu neexul ci xol xam nga heureusement am naa jëkk boo xam ne ma taxaw waaye bu nekkoon ñeneen mënoon naa dellu waaye dellu ma dama toog parce que man sama dëkk lay liggéeyal donc ma ne ku man sama kii de kër bi dama ne ana état bi ana nit ñi ana askan bi kon boog lu tax te jii man nan laa mënee gis ma consciemment ma ñëw def sama pre mais maa ngi ñëw investir Sénégal ma ñëw gis jàkk même tabax ko si wetu jàkk ah daa fekk man bëgguma dara daa fekk bëgguma dara. waaw wax nga dëgg euh, mais dafa mel ni yow sa complexe bi moom moo fi jiitu euh, jàkka ji te gars yi accepté woon nañ ko ba pare. kon loolu mooy li nga xamante ne moom moo ko naqari exactement léegi nag lan ngay wax euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi ak askanu suñu gaal. man autorité yi ak askan yi man maa leen di ñaan euh, que ñu déglu sama cri bi parce que instant bi mënu ma def dul ñaan daw naa fu nekk fëgg naa fu nekk waaye ba tey kenn déglu ma daal moo tax lii nag sama cri du cœur bi dama bëgg askan bi ngeen jàppale ma si état bi tamit dama si jàppale li ma soxla mooy lan grande licence pour mën a liggéey tekki sama dëkk xam nga jàppale ay nit. yow nan nga def ak maire bi nga xamante ni moom mooy maire Sébikotane man sincèrement maire Sébikotane accueillir na ma woon dem naa gis ba ñu waxtaan ci waaye bu ñëwee ba ci biir am na yu bëri loo xam ne dafa lëndëm ci biir xam nga am na yu bëri lëndëm comme par exemple su ma doon préfecture di demander ay autorisation des fois man maire bi su ma njëkkee rek dama ko am. dama ko am comme nga war organiser soirée. wala amoon na benn maire bi bu la fa jiitoo doo ko am. oui amoon na benn 31 décembre déposé naa des na lu jëli sans papier dama egg si préfecture rek maire bi di génn man may dugg. ki fa nekkoon ne ma euh, boo ñëwoon cinq minutes à l'avance sa autorisation taxawoon na donc sa veut dire que y a quelque waa loolu noonu nga xamante ne nag moom mooy ñuul ci soow mi lan laa bëgg nga wax ko askanu suñu gaal gi yépp xam ko lan moo dox sa diggante ak maire bi ban problème moo am seen diggante. man moom ba tey man mënu ma la pour man ma gisuma problème bi parce que man ba tey man mi di wax damaa jaxle parce que dama ne. Euh, bu ma toogee ak moom gis ko ñu waxtaan ça s'est bien passé mais après la moo am ci biir parce que jàkk ji c'est son cousin moom moom jàkk ji waaye donc c'est le cousin du euh, comment dire euh, du, du maire donc pour man pour man nag fël yëpp fa la jóge mm-hmm. lépp fa la jóge parce que ñoom pour ñoom mi ngi ne fii comme man nu ma ko gisee ne c'est un complexe ñoom gisewuñu ko noonu ñoom pour ñoom leneen lañ ko gisee mm-hmm. or que c'est pas ça wax ko c'est pas dëgg la euh, kon avant jàkk ji di fi ta di fi taxaw yow ak euh, monsieur le maire yéen ñaar euh, doon ngeen déggoonte doon ngeen déggoo ci kaw yi kàddu c'est-à-dire heure bu ngeen waxtaanee waa daa ngeen trouver une scène d'entente léegi nag ñu gis ni jàkka ji daf fi taxaw rek moom mu bañal la ko te li tax rakkam moom moo ko fi def. jàkk ji. waaw jàkk ji moom moo ko fi parce que comme ku ñu ñëwaatee rek parce commission bi muy jàll jàkk ji amu fi woon. donc jàkk ji ba taxaw rek kon ça veut dire que loolu yëpp la man je dis pas le contraire que muy jàkk église di lépp parce que on est dans un pays laïque. Mhm. donc vu que dans dans un pays laïque moi pour man le respect des religions sa se doit même kii bu tax bu tabaxoon sax tey baax sa buntu kër boo bëggee def sa diine di nga ko def. soo bëggee pratiquer sa diine di nga ko pratiquer par A ou B parce que gis nañ fi loo xam ne Sénégal lu doy waate kenn ko comme boo ko boo xam ne am jàpp ma ci ku man fan laa jëm man dama am njaboot am naa njaboot am naa ay doom doon ku man li laa yaakaar moo tax tey sama cri du cœur mooy lan nañ ñu jóg xam nga jàppale wax ci daal est-ce que lii c'est c'est normal ou c'est pas normal nga nga quitté dëkk dëkk boo xam ne amoon nga fa jàmm amoon nga fa lépp nga ñëw ba sa dëkk yow lu ñu la war a jox ñu la ko. te bi ngay ñëw Sénégal euh, yaa ngi may junj ne am na sa yeneen i morom yoo àndaloon ñooñu ana ñu. ñooñu dellu nañu parce que bu ñu ñëwee Sénégal tamit métti woon na torop j'étais venue avec cinq copines ñoo xam ne ak seen jëkkër tamit ñëwoon tamit pour investir Sénégal ñu ma non vu que euh, le gouvernement de Wade daanu na gouvernement Macky yéeg na léegi ñu ne gars yi non donc te temps yooyu dëggal Macky mu ngi doon inciter les compatriotes de revenir chez vous ñibbi si leen ngeen liggéey donc nous on cinq waaye cinq ñëpp dellu keneen ki daaw la dellu ñëpp dellu parce ne Sénégal dafa metti papier boo bëgg dugal il faut mu dugal boo dugalul xaalis doo am wala sa des fois dugal xaalis duñ la ko jox des fois dañ lay jaaraloo nekk fu nekk li lay jaaraloo dañu dañu combat ba mënatuñu ñoom ñu ñibbi man tam mañ man man dew ma sama dëkk laa nekk je suis sénégalaise comme tout le monde donc comme naa la dëkk boo xam ne nag am na loi comme waxee man nag loolu lay xaar loolu tax ma toog ba tey man loi bi lay xaar est nekk sama côté parce que mënoon naa dellu comme ñëpp waaye ne du dellu fii lay toog doo ma fen parce que sama cri du cœur bi il faut que ñu dégg ko tamit waaw askan nañ ko dégg nag après nag ñu xam ne ñuy def ci biir. dëgg la comme ni mu ko waxee noonu la demee nee na chroniqueur am lay ñaan euh, askanu suñu gaal gi yëpp dégg ko jàppale ko ci aussi tamit parce que wax dëgg yàlla euh, complexe bi ku ko gis ku fi ñëw ci biir dugg fi wala nga taxaw rek romb di nga xam ne fii ay millions lañ fi lañ fi lañ fi lañ fi def te wax dëgg yàlla xaalis bu toll noonu euh, dee su ko def ci bërëb ba pare bàyyi ko fa te li ci gën a yéeme mooy moom dañ ko ko accepté loon nanguloon nañ ko ko pour mu tabax ko nanguloon nañ ko lépp loo xamante ni doon na ko fi def mais ginnaaw bi jàkka ji amee daal la mbir mi xew. taxaw. ñu gis ni tamit yow jaar nga fi nga war a jaar yëpp am kayit yi nga xamante ni moom nga war a am euh, ba léegi mu demee nii euh, état Sénégal buñ ci waxul est-ce que kon sa mbokk yi nga xamante ni ñu ngi extérieur te war a ñëwaat fii nii ngir investir buñ gisee ni ñoom buñ ñëwee bëgg investir ay jafe-jafe da leen ciy dal est-ce que ñoom dinañ ñëw investir si. Euh, man sama xalaat état bi su jàppalee duñu dem moo tamit mu ñëwaat di ñaan état bi. parce que ku ma ko ci waxee depuis 2013 ba tey dara sottiwul donc man maa ngi ñaan état bi état bi su mu nee teg loxo lépp mu ci mën mu def ko parce que tey état bi su jàppee ma am ndam rek ndam la pour ñëpp la ndam la pour ñëpp ñi demoon parce que ñu ngi ne comme comme ko ci waxee léegi rek def na ko réussir na pourquoi pas ñun donc du coup ñun ñëpp nañu am courage mën na ñëwaat am fit nag ñu ne ah donc on va investir dans notre pays et avancer comme tout le monde moo tax may ñaanaat ko état bi ndax état bi mën ci taxaw mën mën mën mën ma si jàppale daal mën ma si jàppale bu baax a baax parce que am naa yaakaar parce que doomu Sénégalais laa donc comme quoi doomu Sénégalais te ma nekk difficulté comme man tey su ma ñaanee état bi état bi war na ma ko mën a may su ma nee ba taal sama loxo ne état bi man maa leen ñaan xaar naa xaar naa gisuma waaye yéen yéen laa yéen laa yaakaar ko xam naa ne dañ ci taxaw donc à commencer par notre président ah notre président excellent Macky Sall donc ma commencé si moom di ko ñaan bu déggee sama cri du cœur wala képp ku nekk entourage am dégg ko rek man maa ngi fii Sébikotane donc di ko ne xam fan la may joindre. bu baax a baax parce que soxla naa ko instant bi dëgg dëgg mel ni sax euh, ay quelques papiers nga yor fii nii yuy wane ni euh, li ngay wax euh, yow yaa nekk ci dëgg. waaw li nga wax am na tamit parce que papier yaa ngi nii yor naa papier comment dire la commission. parce que commission bi fii képp ku demandé ay papiers pour euh, comment dire euh, ouverture d'une salle polyvalente donc du coup da nga règlement yu ngay jaar donc papier bi donc la commission est passée donc commission bi ils sont membres de sept donc commission bi dañuy signé seen dossier bi ñu ils m'ont accordé le dossier donc c'est un dossier avis favorable donc am avis favorable te bu ma ne ma comme que tu as un avis favorable donc saa yi boo soxlawee tu demandes la permission nga liggéey donc du coup daan naa liggéey le temps d'attendre le mot du gouverneur donc. Euh, yan problème ngay gën a jàkkoonteel fii nga xamante ni yaa ngi euh, problème mi fii parce que euh, jàkk ji mu implanté woo fii te am na fi jafe-jafe yu bari parce que dañu am na fi ay comment dire pétition xam nga pétition yoo xam ne ñoom bëgguñu lii suñu suñu wax waaw pétition yi naa fi génn donc jànkoonte naa tamit ak euh, pareil tamit ak le maire aussi dem ba na xam nga urbanisme pour ne est-ce que vraiment j'ai les papiers qu'il faut toujours loolu yëpp dañ koy def sama ginnaaw waaye après je suis au courant de tout lépp sama ginnaaw lay passé. après je suis au courant que waaw jaar nañu fii maire def na nii sa papier est-ce que leer na or que j'ai tous les papiers légaux papiers yi maa ngi ko yor donc comme ni ko toujours ce cri du cœur donc ça me vient du yëpp ñëpp ñëpp bàyyi ma kenn kenn kenn kenn kenn. kenn laa ci bàyyiwul. waaw ba tey rek ma lay laaj ndax fii mas nga fi def ay activités yoo xamante ni day ñeel askan bi yëpp. waaw mos naa fi def activité comme euh, consultation gratuite parce que man dama am association boo xam ne tamit day day consulter ñi léegi man dama ko def Tëngéej dama ne vu que maintenant je suis installée à Sébikotane pourquoi pas ma def consultation bi fii mais avant tout j'ai vu les autorités médicales et tout ñu ma loolu idée bu baax la initiative bu baax la léegi mu ne organiser ko ba defal ko lépp ba pare ba jour j'avais euh, neuf médecins et sans compter tout le matériel qu'il faut. yoo xam ne lépp yow yaa def li ci war. lépp woo askan bi ñu ñëw consulter wu. waaw lépp laa def lépp ci war jour J j'ai même pas dix personnes yu yàlla ne c'est après j'ai un retour ñi ma ne euh, dañ dañ ko waaree si jàkk ji ñu leen foofu beneen fa dem loolu pour jënd leen moo tax mu def ko. kon bu ma la déggee après constation bi bi mu jàllee lu baax li nga def askan bi ñoom li ñu waroon def mooy di ñëw fii eh, di jëfandikoo li nga xamante ni yaa ngi koy liggéey ak ñoom di jaay li ngay jaay ak yooyu noonu ndax clients yi ñu ngi ñëw. non pas du tout clients yi moom dans la semaine euh, mënu ma dépasser euh, cinq clients dans la semaine dans la semaine mu am cinq clients parce que man pour man c'est les rumeurs aussi xam nga parce que dëkk bi wax na fi wax xam nga nit ku ñuul lu mu gaaw a gëm dafa bari. donc vu ko man dama dëkk a côté di benn guy lu nekk ngay dégg. si guy bi lu nekk ngay dégg donc du coup euh, dañ dañu implanter la peur sur la population. Mm-hmm. mythe waa keñ. Mm-hmm. loolu la mm-hmm. donc du coup c'est c'est comme ça mu ngi noonu la clientèle c'est pas facile c'est pas facile du tout non c'est pas facile donc du coup def bâtiment bu mel nii après tu te retrouves euh, bâtiment bu may def prêt bi j'ai dépassé les 30 millions. et sans compter lu mu ci defaat après donc tey su ma doon compter mun naa maa ngi ci 40 te 40 yoo xam ne tey mënu ma ci récupérer sax 10 millions donc ma sama première facture fii je pouvais même pas le payer c'est mes parents qui ont payé ma première facture d'électricité parce que mënu ma ko woon fay mënu ko mënu donc du coup euh, may waxaat tam ci askan yi encore tamit xam nga mon cri du cœur mooy sama victoire sama victoire mu ngi seen loxo ak ci loxo bi donc tey gi su ma ko amee tey la tey di ngeen ma jàppale yéen askan bi et surtout l'État et surtout l'État donc di leen remercier bu baax a baax ba képp ko seetaan tamit di mën ko partager tamit di leen remercier bu baax a baax a baax ci seen taxawaay tamit. jërëjëf kon mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi ñuy seetaan fi nga xam ni moom mooy Thiès Info nee naa leen saa su neexee fii la saa su baaxee fii la saa su doxee itam fii la euh, fii la lépp di leere euh, soxna si nga xamante ni mu ngi wóy ci turu euh, Sina Djiboune moom moo nekkoon ki nga xamante ne moom la ñu dalalam fii nga xamante ne moom mooy complexe bi nekk fii ci Sébikotane complexe bi mi ngi tudd Kër Stéphane nee nañ ma sax turu doomam la ba tax na kon li ko naqar yéen ñëpp ngeen fi nekkal li ko naqar yi wax na ko yéen ñi nga xamante ni yéen ay bi yéen ñi nga xam ni itam ñëpp ngeen fi nekkal euh, jàppale leen ko ci li nga xam ne moom mooy li ko naqar yi ndax lu toll nii mu def ci ay millions yu bare bare bari bari dem ba facture sax bi nga xamante ne moom mooy facture courant pour mu fay ko faw ñu yónnee ko xaalis mu fay ko loolu métti na métti na trop trop trop trop kon euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ki nekkoon ci kàddu gi seen mbokk seen xarit Gumaalu jaageen jëf